laa nekk mais sama. xaar rek ma woon fii la commencé déglul. kon déglu leen. actuellement damay woo de mais dama sonn sonn dama bëgg xaalis damay jaay xale yi gis ma sax woo ma korite gi ñëw na ba pare aw ma dara a perruque amaguma yére prêt à porter laa bëgg jël du ma jaay kon wéro. nga nee na day jaay ndax pré nu mu ko tuddee prêt à porter la bëgg a jënd mooy seen sëfa yooyu rek xaw ma leen bu baax rek.

yow man la kap si bi ma sama àdduna yàqu sama papa ba ma àdduna ak àllaaxira ah loolu merci sama far dama am ay far yoo xamante ay autorité lañ ci dëkk bi nit ñi xam am ay faru autorité ci bi daa am ay faru autorité nit ñi xàmmee leen déglu leen déglu ba ma dugalee vidéo yi nag xoolal mu may mu naan ma dindi ko xoolal rek rek déglu rek. moom doo génnee vidéo bi te ñu waa ngay def. moom doo génnee vidéo bi te ñu waa ngay def. moom doo génnee vidéo bi ñu dugg isatu ngir yàlla instant yi man dama jooy ba amatuma rangoñ. yaa ngi dégg parce que man xalaatuma woon lii dina egg fii nii yëpp jàppale ma rek génnee ko sama patron ngi nii daf ma génnee daf ma génnee place bi. instant yi suñu waa kër ñëpp ak may woo. nee nañ koo génne branche bi mën na récupérer bi man la yow tam daal li ngay def waaye dindil vidéo bi waaye tamit nag. rakkam jéem vocal loolu fu muy liggéey ñëpp a ngi wax famille bi ñëpp a ngi wax rakkam yeeg dàq nañ ko sax fu muy liggéeyee ne bàyyi li ngay def waaye. ak ñoo mën a duur dëgg yow yaa ko raw yaa gën a cege ñëpp. lii laa tontu rakk ji. yow yaa gën ñëpp yow yaa ko raw. bul wax loolu yow tamit ki xale la xamul yi ngay def nii sax mu ngi nii di pat patine nii di tiit li ngay def kenn ko def dindi vidéo bi tam. nii la ñuy jooyee déglul. nii la ñuy jooyee. nii lañuy jooyee. Ambros yow miy tàppet nekk fi sànq ba tey di jooy ba. dëgg la docteur Ndeye fële yow. dëgg la woo naa la waat doon jo kii moo doon wax appel leen ne leen kii moo doon jooy kii moo doon jo kii moo doon wax ci audio bi. mu ne bu ma ko mu ne naa ko dindi ba pare bañ koo woo déglu xool leen leen des na de. baax leen. baax na rek. walla fii fii mu ngi wàcc bo bu ma woo de bu ma woo Adam woo instant yi kay suñu waa kër yëpp dañoo toog gi xaal ngay def live bu sa sox tudd sama tur jàppale ma rek. déglu rek. naa dañ apporté naa ko dindi naa la woo su commencé kii bi la woo commencé gu ma. déglu baax na rek. kon jàppale ma rek ngir yàlla bu ma woo instant waa kër yëpp dañoo toog di ngay def live bu sa sox tudd sama tur jàppale ma rek. jeexee. su live bi jeexee la ni génnee noonu laay def man jeexee lay génn. déglu. lii rek ñëpp di wax di ma capturé ay kon garaaw man sama woowee ma jël l'essentiel sama waa kër ñëpp gis nañ ko amatul lu ma ci nëbb soo bëggee sax nga naa seeg dootuma si waxat si liggéey affaire waaye dag maa bett bàtt Seydina Mohamed de la daw man di la message waaye dag maa bett bàtt pour ñëpp de man ma am fit di la message nga man bi du wili pande ñëpp di la daw de xam nga affaire bi lan la affaire bi mooy maanaam jigéen jigéen dangay xam sa bopp maanaam jigéen dangay xam sa bopp lan mooy cheveux naturel ah? lan mooy cheveux naturel lan lan mooy cheveux naturel lan mooy cheveux naturel ah sama naturel dama bëgg ay prix dama bëgg lii dama bëgg laa lan mooy sama naturel cheveux naturel mooy lan ay cheveux ay eau ay lii pour korite gi xam naa korite gi ti laa ña nar ndey ñu bëri pour nga yónnee sa lëf quoi non mais yéen ñité zéro yónnee sa leuf wala ñu kat la pour ben seva seva naturel bin lay jox kat la leuf valeuru leuf leuf valeuru leuf leuf valeur mo upp mo upp solo ay ay ki ay seva naturel lima ma metti xam nga moy lan yeen da ngeen xamul ndaw mais sammu sa ndaw ni mu baxé manam ñu lay kat nga fess del di soti deret bu bax deret bu bax mom ken yoratu ko senegal léegi dara ni dañ koy modifier kun ci kat ba sa data froissé nga dem pharmacie jënd benn moteur ñu katal la ci ndayem katal la dara ji di xeet mais ne bu bex la mais gaay yi dafatul xàmmee nan dara tu original bu ndaw bi moy gëna xonk xonq ni fim ni day légère gaay xamé nan ko sin way kun la ci ti bu mbàq mi bu tojee dara ji commencé sorti goor ñi xam nan ban façon dara la dafatul ku ci katante dal ba sa leuf mel ne pono camion bu tass nga dem ca pharmacie ba jënd ay moteur monté waat huilé commencé toog gaa yi dafa dund gars yi léegi dafa dund de monté ndaw xewi na fini ku ci dof dof lu ba sa moteuru lëf dem moteur boo monté waat gaa yi dinañ ko xam non mais c'est honte de Sénégal pour lan pour lan affaire xaalis nga yàq sa ndaw li gën a bon mooy yàlla boo sëy nag yàlla boo sëy doon ñaareel fekk fa aawo ba mu toogoon ci pooju ndeyam ak a ñu katt la nga fees dell yow nag dan laa katt doog lay takk wala nit a la ëmbal nga doog a dem sëyi di xulloog moom mu ne xam nga jigéen moom dafa soxor mu naan la man de dama fees del toog sama pooju yaay ban fekk si ma takk ma yow nag ca nga woon Ablaye kat na la Modou kat la fii la la góor a njaay ëmbal sànni sa wara nga ñëw mujjee fii dorus man dama fees del toog fi ma war a toog sama jëkkër fekk ma fi takk ma sagal ma ma sëyal ko lu neex am ak moom doom yu lew yow nag sa caga mu wër na àdduna doo loolu ku nekk kuy jigéen war nga ko xalaat kuy jigéen rek war ngaa xalaat bis boobu looy wax.